Euh, dafa am ay sujet yoo xamante ni chaque début de semaine da nga ñu koy indil alors tey euh, nga tànn beneen sujet boo xamante ni bu ñu moytuwulee bu yeewu leen bi jeexee dina indi ay polémique euh, parce que souvent am na ñoo xamante ni d'accord nañ ci am ñu ci d'accordul sa portable jëkkër wala sa portable jabar est-ce que am nga droit jël ko boo ko jëlee liir ko est-ce que yoon la yooyu yëpp ay xeetu bi fa fooree la wax ji di demee gauche à droite jël euh, liir ko wala tamit nit di ci woote nga xool gis tur bi xamoo ko euh, est-ce que da ngay wuyu est-ce que da ngay ignorer nit ki wala est-ce que tu à la personne concernée ne ko kii di la woo tout le temps la ban réaction nga war a am donc loolu moo nekkoon sujet tey bi def nañ ci micro trottoir bu ñu ñëwee dinañ euh, waxtaan tamit ak waa plateau bi pour xool ku ci nekk ban réaction nga doon adopté bu fekkoon yaa nekkoon à la place de la personne. man da amul tey duma ci dal. man man it damaa sekkut ak ay collègues yow garant man du lekk sax firiir sama kër fas laay togg. dama ñu leen mas na maa ñëw fekk mu def ci sama man sama tur man bu ndaw laa tudd. mu def ci euh, femme maanaam sama femme daal. mais nga damaa woo sama doom ji. kay wool ma ko kii mu ci def comme doon xar na ma yaay bi sa numéro la. mooy <laughs> tam moom sama téléphone jabar du sone du ma ko wax dara damay jël jox muyu ndax nit day ànd ak dal ànd na jaru gudd tank di yàqal bu lépp loo def rek day am conséquence sa ëllëg mooy lépp choix bu mun def rek ak décision boo jël na nga gis temps xoolaat baax li nga def ndax ñëpp matuñu. bu dee góor doo bu dee góor a mer nga gis temps xool wax mun na nekk mun na nekk yaay mun na nekk keneen. mun na nekk xaritam góor. mun nekk ami d'enfance am. da nga war a wóor jàmm jox ko confiance man sëkk ndax. moom war a dugal ba may dee ak moom. man de gis naa ba daay jigéen woo ko waaye damay jàpp rek xam rek ne jigéen du xam daa daa war a xam góor xam jigéen. waaw déedéet yàlla xam na ñaaw ma jort nag déedéet ñaaw ma jort garaaw boo bëggee noppalu boo bëggee noppalu am conscience tranquille waaw kooku il faut ma décroché ko laaj kii kan la xam maanaam ki ko yor kan la dina ma parce que il faut ma xam ki ko yor lu mu koy doyee daal maanaam. waaw looloo gën a wóor. a wóor loolu mooy li sama xel. waaw xool kan la. doo bàyyi noonu daal. non du ma bàyyi sama jabar moom wax dëgg yàlla dama ko takk farataak suñu jot su ma gisee góor bi koy war naa xam kan la. si dinaa ko mais il ma jël téléphone bi xam kan la waaw loolu daal mooy li gën a dal xel. voilà les avis les avis sont partagés ah ku ne yaa <laughs> ku nekk yaa ngi ciy wax sa xalaat yow yow yow yow luy si si xalaat. oui mais euh, euh, je je partage un peu ak li wax ci ginnaaw sànq ne chacun a son jardin secret même si alphimi say sëyu paay ak maire yi nee na euh, booy euh, booy jardin secret ba am jabar nga bañ jardin secret. mais Pape Cheikh na ñoo xam am na ñoo xam ne du jardin secret lañ am. plantation secrète lañ am on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais. on ne sait jamais ça c'est la voilà. oui ça c'est oh, un mec et attends non il y a un mec il y a un mec qui m'a fait un message il a dit si tu n'as rien à cacher il y a pas de problème. waaw oui Pape Cheikh non mais toi ni nga waxee ça montre que tu n'es pas un homme fidèle. kon nag xam dog wax na ah. lu ñuy dagg non non non je parle pas de là je parle pas de fidélité je parle non non non non je parle pas de fidélité ou d'infidélité dama ne dama ne dama ne jamono neexul. on ne sait jamais on ne sait jamais tu sais souvent euh, euh, mën nga mën nga jël téléphone bi. Euh, liir ko jot ci kii sa jabar par exemple jot message boo xamante ni ko ko yónnee dafa juum. <laughs> voilà xam nga dafa juumul juumul nga ko xeex ay problème après c'est trop tard <laughs> et eh, moi je conseille à tout le monde. Eh, je conseille à tout le monde faites comme faites comme il a son ami sa s'appelle Ablaye alors Ablaye moomu noonu sama waa ji xale bu jigéen bu mu giseen teer rek Ablaye lay bind ci tur bi ah. maintenant tout le temps y a que des Ablaye qui l'appellent on s'en fout Euh, li ngay wax nii man am naa sama rakk boo xam ne moom numéro xale yu jigéen yi. numéro inconnu la ci bind de ce fait quand tu appelles c'est un numéro inconnu qui affiche ay satu lan mooy sa avis si question bi. non non en fait moi je connais quelqu'un boo xam ni dafa def sama mécanicien. ah tu vois <laughs> donc. Euh, mécanicien sérieux je te promets. moom mécano la eh, chaque est libre libre mais mais en fait je pense que ku nekk. kenn warul laal téléphone kenn man ci sama gis-gis. <laughs> sérieusement même en mariage. elle est fidèle elle. Oui. <laughs> parce qu'en fait wóorul gis nga. Euh, euh, luy indi luy indi voilà qui cherche trouve c'est ça luy indi ay problème je ne pense pas que euh, euh c'est toujours mieux de l'éviter ah. waa léegi parce que que téléphone bi du sa téléphone sa téléphone du jëkkër la boo xasee boo ba dire que yaa ngi seet te nee nañu loo seet da koy gis loolu mag ñi ñoo ko wax téléphone même bu dul téléphone mag ñi nee loo seet gis ko boo xasee bu yëkkati sa téléphone borom kër wala sa téléphone jabar rek ça veut dire que am na looy seet. te loo seet di nga ko gis. c'est un débat très intéressant mais loolu ca envie de participer Zeyna ca envie de participer. Mayel Mayel Mayel Mayel Alfi wax. yow ma ni. Maymuna <laughs> moom dafa day wax sujet ba après da lay da lay perturbé ma ni. léegi yow sa sa sa sa jëkkër. Mhm. wala sa jabar su occupé maanaam nekk ci douche bi. nga dégg téléphone bi di sonné. non ma ma yeggali. bàyyi ma ma yeggali. léegi yow nga gis moo ñu moom 100 francs lañu jëndee ñun. léegi yow nga gis. moo ñu moom moo namoor ki suñ ki son wala moo bébé ki son 250 lañu jëndee. ah quoi. Alfie. oui oui yow tu fais quoi. tu réponds parce que yaay bébé bi yaay amour bi woote woo kay. beneen amour wala beneen bébé di woote. c'est vos avis de toute façon. c'est vos avis t'es pas le seul bébé. c'est vos avis de toute façon. en tout cas en tout cas. exclusivité en tout cas et eh, moi ce que j'en ce que j'en déduis. Eh, ce que j'en déduis. Pape jël nga débat bi de. non non non non ce que j'en déduis te loolu moo am c'est-à-dire affaire bi du xët xët àdduna du du du xeex. àdduna du xam bu tàng àdduna dal la ak tey àdduna hmm. Hmm. discipline discipline la toujours ah. adduna discipline. affaire bi du defante adduna du xëtxënte. ay non ku ko woo oh, dama koy wuyu laa wax pourquoi eh. calme-toi mais tu sais tu sais la adduna du yëngat du xëtër xëtër de. tout à fait adduna nii la rek teg. ku nekk sa tempérament non non non ku nekk ak sa tempérament hélas. ta mère ne te dira jamais demal nga indil ay problème sa borom kër hélas. ak tekk ak tey la après aussi parallèlement chacun est libre de faire ce qu'il veut. parfois dañuy yabaate naan la pourquoi tu tardes à me répondre. <laughs> <laughs> Ah! vas-y vas man li nga wax d'accord ma man li nga wax d'accord ma non chacun est libre tu, tu es libre de d'accord ou pas après yaay yaay xam nooy gérer sa ménage mais <laughs> mag ñun mag ñi moom xam nga lu ñu fi nekkee xelal xale yi waaw c'est tout yow ko man moom Euh, makal fi defe naa ñoo xaw a mm-hmm. waaw parce que man su ma jëlee sama exemple bopp. sama code téléphone mon mari là j'ai son code téléphone. voilà sama téléphone quand je suis occupée il décroche. quand il est occupé je décroche. ba sama Facebook sax yenn saa moom mooy tontu nit ñi. au au mais c'est non parce c'est euh, des c'est des preuves c'est des euh, preuves de confiance. ça peut être preuve de confiance selon yow sa couple construirez. Ah. Si voilà. vous êtes un couple où vous vous dites que vous vous dites que vous vous dites tout. Dans bah, la vous vous dites tout. Voilà, sur la voilà, sur la base de la base. Et que vous êtes vous cash dès le départ. Vous êtes cash dès le départ. Mais doo ñëw nga instauré ne que son ton téléphone c'est mon téléphone ba pare euh, sa jëkkër bu demee en cachette. Voilà. ngay def li ngay def li c'est pas possible. Parce que et vice versa yenn yi yenn yi mënoo ko nëbba mënoo ko nëbb lu yàgg. que ça soit que tu vois un message bizarre tu dis euh, c'est quoi ce message il t'explique il après tu le crois c'est tout. man man je yooyu yooyu par exemple c'est des trucs cash. mais mais mais mais quand nga laqatu nga bàyyi nga bàyyi sa jëkkër dem. après nga yoot nga ni da ngay xool téléphone. loolu dafay dafay jur ay gàllankoor dafay jur ay gàllankoor waaw. voilà voilà mais quand vous êtes quatre euh, euh, discutez tout. boo ko xoolee sax par exemple en cachette après la personne peut te dire que c'est mon téléphone lan ngay xaaree ba ma dem. voilà mais man c'est ça en fait. mais man man ak Mary Bey en fait ñoo bokk même système je pense là on ku nekk yor na sa code morom. et que euh, quand tu prends quand tu prends la <laughs> téléphone de la personne du nekk am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne da <laughs> ngay da ngay man daal wax waaw venez venez parler da ngeen bëgg a wax venez venez venez venez venez <laughs> non viens après doo ko déranger ah, <laughs> viens kay taxaw bul déranger ji yow tamit moom jaarle na ci wax ji voilà jegeel Alfi nga wax ci dënnam euh, <laughs> ci micro oui vas-y pa waxal euh, Pape Cheikh man lu ma xalaat mhm. petit. petit vas-y euh, pour man euh, nit buy woote si sa téléphone jëkkër. Mhm. mun na bañ a nekk tam gelam. Mhm. mun na bañ a nekk parce que pour man sa jëkkër mun na sekk ak sëram. Mhm. wala xaritam wala ay cousin am loo xamante ne yow yëgoo ko. ñu koy ñu koy ñu koy sekk yow boo fuyee téléphone am mun nga keneen koo xam ne du gelam du dara. mu sekk ak moom loo xamante ne yëgoo ko nga découvrir man pour man télé ku nekk ak sa téléphone. ku nekk sa intimité parce que ah, ça va au-delà yi muy am ak couple la couple la couple la. on se dit tout la ñu bind seen turu génn Joséphine moo leen di contacter pour ay reportages. ak yooyu tur yëpp turu génn yëpp Joséphine lañ ci bind. faites attention vous qui avez euh, des manières ngeen gis rek gel la <laughs> astafurlah j'aimerais juste poser une petite question aux filles. Mhm. ak si li ngeen wax yëpp déglu naa leen. vous n'avez jamais fouillé le portable de vos maris. si. voilà. moi non yaa fuy rek. quand yaa fuuy rek am na lu ñu ci di seet. vrai ou bu amee rek. am na lu ñu se rassurer dama dégg juste mag ñi ñu ne. li ngay li ngay li ngay li ngay xool ci nit ki loolu rek ngay gis waaw boo ko seetee rek da koy gis c'est-à-dire boo dee seet par exemple ni Ricardo dafa am gel mm-hmm. mun na tombé ak Mado. il est beau c'est normal il est tout le temps numéro Mado bi numéro Mado bi numéro Mado bi yow gel ngay seet après dans gel ngay jàpp même mun na nekk ni sax moom dañuy liggéey wala leneen la ñuy seq quoi après il faut faire très attention aussi ah. éviter tu vis pas tu vis pas tu passes toute ta vie à chercher à fouiner à fouiner. non non mais en fait je nit bu la joxee accès si téléphone daf lay dalal. daf lay dalal et tu sais que xool devant la personne. du stressé. du mm-hmm. tëb du def dara parce que am na mm-hmm. góor yoo xamante ne. am sax ñoo xamante ne ñoo lay on va leen message soo leen abbee téléphone sax pour pour passer un coup de fil. ils sont stressés ils sont derrière toi. le buffet est ouvert. ouvert on l'a fermé non non le buffet n'est pas ouvert. tu as raison. le buffet est ouvert. il y a tellement de gens. l'homme est naturellement polygame. c'est vrai on en a marre de tous les jours ceebu jën on veut damada de temps en temps. on veut dafis de temps en temps on veut franchement du dañu bëgg sax yaourt de temps en temps. feebar nga kon. bu yàggee nga feebar. maladie rek nga di jëlee. intoxication intoxication c'est comme un téléspectateur c'est comme un téléspectateur qui parle de libertinage alors qu'on est en train de parler de téléphone portable on ne parle pas de libertinage encore une fois. question bi c'est valable. pour pour les garçons aussi. rubrique polémique la tudd léegi je <laughs> mais c'est valable c'est autant valable pour les filles que pour les garçons. ah Ah. mu ne qu'il trouve normal que moom mu xool téléphone jabaram. waaw jalousie c'est vice c'est vice versa mm-hmm. faites très attention avec les téléphones parallèlement li mu yàq bëri na. mais comme a dit euh, euh, Mary Bey il faut être cash aussi. parce que lu amul waxtaan defe naa baaxul. Mm, quand il y a pas de communication dans un couple. loolu baaxul ah ñàkk communication mooy. il faut tout dire il faut tout dire aux femmes. Euh, c'est important surtout parce que li góor mën a mën jigéen mënu ko ah, mënu ko au contraire en ah, question de jalousie les hommes sont beaucoup plus jaloux que les femmes ah. tout à fait mm, mm, mm. d'accord d'accord yéen yaa leen ñu gën a fiir parce que jigéen par exemple mën na la jàpp baal la mais góor bu la jàppee <laughs> da koy denc si biir xolam yenn saa yi yenn saa yi jigéen jàpp la ne pat mer ko te doo xam lan la fekk am na lu mu gis ci téléphone doo yëndu ci jàmm di leen fa foore <laughs> yow ci parle d'expérience gàcce de la rey papa ci parle d'expérience gàcce gàcce wala wala nga jàpp ko mu ne la waa léegi. non mais pourquoi pourquoi j'en parle comme ça euh, je vais faire, je vais a été ça a toujours été un débat entre moi et ma femme euh, mon ex-femme que j'embrasse très fort yaayu taaw laa ko tuddee on discutait tout le temps de ça quoi alors il m'arrivait des fois à 17h su ma wàccee téléphone dama koy fay dugal donc elle m'interdisait d'entrer même avec le téléphone dans l'appartement donc comme quoi ça euh, dafay jur ay polémiques yu bëri quoi boo coowee boo teewul teew li bëri kon bisu teegaat teew léegi. teew li bëri teew li bëri téléphone ngoog daal ku ci nekk nga ko gérer ni mu ko bëgg a gérer rek. <laughs> merci.